mbokk yi ñoo ngi nii ak ak Ada Fass fi nga xamante ni fi la defee jàkkaarloo diggante ma kolifay ma bàyyi ko mu ñu waxtaan ak moom tuuti Ada nuyu naa maa ngi lay fay. ñu gis nga nga jël Coly Faye gars yi doon nañu wax yeneen combat yu gën a kawe euh, wala boog yeneen adversaire yoo xamante ni say mag la ñu ci làmb ñu gis nga wàcc jël Coly Faye lan moo waral sa diggante Coly Faye waaw dafa nekk champion nekk ndaanaan waaw moo xam ne bu mu ko jëlee nekk dina nekk làmb njëriñam waa gaa yëpp dinañu bàyyi xel moo tax ñu yor ko ndaxte dafa dafa def ay preuve ñu ñu def suñu preuve mu jiitu suñu làmb mu jiitu ñu si làmb nekk suñu grand ñun ñu liggéey ba fekk si ko waaw loolu kese la du leneen. ñu ci bàyyi nee ñu euh, adversaire yi nga doon am ak adversaire bi du benn daan nga am adversaire yu mën a xeex adversaire yu mën a bëre mais ku la mag ci làmb jiitu la ci làmb mën a xeex mbandi saay-saay lool nga am ko la moo tax nga taamu ko te ñu ci gis ñu bàyyi ñu ñu gis ñu bàyyi xale yi dañuy faral di jël seen i mag wala boog faral di xool ñeen ñu nooñu nga taamu jël ko li fay ci moment bii nga toll est-ce que du risque ci yow. dara nekkul risque si ñun dara nekkul risque si ñun ndaxte ñun xam nañ suñu bopp te incha allah rabbi le 26 juin ah dina lépp dina leer ba bi sifflé gën suñu diggante incha allah. Coly Faye nee li nga ko yabee ba jël ko wala boog li nga ko ñemee ba jël ko bu bés ba lim lay ñaan rek mooy nga taxaw. bu arbitre bi sifflé gën suñu diggante ñëpp nañ xam ne ne war naa ko jël wala waruma ko jël. waaw incha allah man làmb du ma reculer man bu ma naree reculer bàyyi làmb du ma reculer si làmb xaw ma sax luy reculer waaw ah, man damay dëggal bopp waaw mais yàlla na yàlla def jàmm ba bis ba incha allah. dégg naa ci amateur yu bay nee nañ na Ada Fass jàngiwaat xeex bu baax a baax te dafa gàddam dégg nga lool. ndax man mosuma dem arro am naa onze combat mosuma dem man kenn mosuma yóbbu arro sama sama kanam mosul am siga si làmb kon gars yi du loolu lay bañal ci combat bi. non da man loolu noonu du am ndaxte man sama kanam kenn du ko laal kenn du ma dóor. mais aada li ngay waxee ni am nga confiance. non ma confiance damaa xam sama bopp. sport laay def sport complet la na kon bëre rek la bëre rek la ñuy def mais bëre dóor la ñu wax damay bëre damay xeex. adversaire mu su ma laal te dama lay touché te balaa nga may touché ma jàpp la daan la. yaakaar ngeen di nga bëgg Coly Faye ba ba ngeen pare tàqali ko yéen ñaar du la non aaro du am <laughs> bu yóbbu aaro kay man maa ko yóbbu aaro. incha allah fay ba yóbbu ko te doo yóbbu aaro. aaro di am man maa la ko fii jàpp ko man maa ko yóbbu aaro mais moom du ma yóbbu aaro incha allah rabbi. mais Ada Fass xel mi dal na de Ada Fass xel ñu bàyyi nee nañu adversaire yi nga ak kii benn te tey la sa xel gën dal ci làmb ji. barke Serigne Saliou ma ne man maa ko yóbbu fii bu di am. man maa ko gën a nekk xale maa ko gën a ñeme risque waaw man damay bagaar damay xeex mais du ma ko wane si laamu quoi tooloo ko moom waaw échange yi gars jàpp daan nañ ma sas quoi. mais combat bi nii lan nga ci gën a bëgg xeex bi nga gën a bëgg parce que ñu ci bàyyi na nañ euh, làmb léegi da ngay jàpp ak xeex bi nga gën a bëgg bi wala da bëgg a ñëw ak jàpp daan. non combat bi lu mu laaj rek ndaxte combat la quoi combat jàng la combat bi la ñuy indi ah, suñu borom lu ñu may ndam rek ñu xam ne loolu la ñu may ndam mais ñu indi di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam incha allah. no ñun dara di suñu dara di suñu bët déedéet ñaan yàlla bi yoon ndam yàlla yàlla may ndam incha allah lan ngay waxaat waa Fass waaw di wax waa Ndakaaru man nekkul Fass Fass Médina Colobane Gueule Tapée Grand Dakar Biscuiterie yi Bentali ñëpp waagu ñaa HLM Baobab Ngor fukk penc ak ñaar yi di woo ñëpp du ma limee damay juum waaw di sant sama benn yaay mère Béti Ndiaye sama yaay la waaw di woo ñëpp maa di woo si làmb ji jàpp si bu baax a baax a baax dina jaajëf sama gaay yi jaajëf kontaan naa jaajëf maa gën a bëgg jaajëf yi gis ngeen ni ko defee ak Ada Fass noonu la ñu ko defee ak ki nga xamante ni mooy Coly Faye Coly Faye ni doog si nekk ci oto bi di waaj wàcc ma bàyyi ko ma nuyoo ñu waxtaan tuuti rek ndax am na loo xamante ni ne Ada Fass jàll na jox na ko ay baat ki nga xamante ni mooy Coly Faye Coly Faye nuyu naa la. Ousseyn maa lay fay. mosu bi laay na waale yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. dinaa ma sant yàlla jërëjëf Serigne Touba maa ngi sant caare di woo Diamaguène Sicap Lamsar surtout waa Diamaguène waa Lamsar Sicap Fass Mbao Thiaré Azir li ma dëkk Mbaral. lan la dañ la gis nga jël booy bi commencé xam nga andi beneen beneen façon boo xamante ni wala beneen style boo xamante ni nii gëj nañ koo gis ci Coly Faye lan lan la combat bi lan la. no lamb la ko yeneen lamb mais lamb ji lim laaj lamb ju lamb wax boo ñuy wax ba mu taxaw dañu waroon def këj liggéey lamb yi amoo ci parole moo ciy wax. Ada Fass nag nee na combat bi bokk na ci combat yi gën a yomb ci moom nee yi bokk na ci combat yi nee naa ko nag adversaire yi nga naan moom am ak adversaire bii du benn mais nee na ma bii na ci yi gën a gaaw ci moom combat yi gën a yomb ci moom xaw ma nag fan la teg loolu. waaw am na ci benn droit pour wax loolu parce que moom góor la xëy na nekk si moom rek la wax mais ma lay nekk si man bàyyi ma téew rek. ñu ci bàyyi nag gis nañu dafa mel ni danga nga maye chance ndax euh, doon nañ la séntu feneen fu gën a kawe fii mais nga wàcc nangoo may. parce que moo